be wishing you a happy Tobaski from myself to you. We wishing you a happy Tobaski from myself to you. We wishing you a happy Tobaski from myself to you. We wishing you a happy hannde kadi min ariti ɗo um, ko watton tun um, koɓe ari ko yimɓe sappo ɓe annduɗa hanki ko kamɓe waɗano dro grts life um, te ɓe nombaji maɓɓe ɗi yaltuno hannde noon ko kamɓe arata naata ɗo suɓano hoore maɓɓe dammolngol ɓe paalana hoore maɓɓe comme ko watta ɗum ko ɓe tun heɓa on africell line fi wawa tawede e ɗum ɗo sa heeɓi on africell line wawa noddude 2011 so mati africell jonnete minute joyi mo annduɗa nodda e ara yewtida e kala mo annduɗa no joguiti africell hara yoɓata hay fus haɗata ɗon africell wiyama kadi ñande o ñande be waɗa drone live jr test yimɓe sappo nombaji sappo suɓete ɓe annduɗa ko kamɓe addete abbu ko ɗo ɓe suɓano hoore maɓɓe dammol ngol ɓe falana hoore maɓɓe ɗum noon hannde ko ɗum min areti ɓeeɗo uh, yimɓe sappo ɓen en no ɓe ɓe dari mo ɓe goto e goto mo ɓe ara e nata ɗo so uh, suɓano hoore makko dammol ngol falana hoore makko hara hay goto forsani mo ko kanko natata ha tuma welti yi dammol ngol weeli mo suɓano hoore makko hotida e mum kam so kadi feere ñu baña wesli nga xam time ñu uh, o si njëlbeeni li wina bi mu mel ni fi jiitu Mariatou Diallo out to you. For my face out to you. For my face out to you. We wishing you were happy. Dubaski. For my face out to you. We wishing you were happy. Dubaski from Africell to you. We wishing you a happy Tubaski from Africell to you. We wishing you a happy Tubaski from Africell to you. It's time for celebration. Come let's celebrate. It's time for celebration. Come let's celebrate. Come let's celebrate. From Africell to you. come every to you. from every to you. We wishing you were happy to basking from every sound to you. We wishing you were happy from every to you. We wishing you were happy from every to you. Yeah, I'm very happy. me and Africell together forever. No, dama content bu baax ba deug. Xana sant yalla rek di sant wa Africell. Waaw ci gagné biñ ma gagné ni. Est eh, ce que dang daan win ci promotionné Africell? Waaw bi moy suma ñetti yoon. Waaw win na fi crédit ñaari yoon bu nekk 500. Yes, content da. Be Africell dem la be jaay la. Mo mo bayan ko Africell no te bu Africell no Ba Africell thank you very much. Alama place la baraka baraka baraka bake tige fota mbe salminama fota allah yo allah ɓoyi on eh, because ɗum wonano no expect you know if there is anybody who don't have abisel line let them go at least find one and try their luck because I think abisel is best GSM operator in the Gambia maa a gërëm di leen santa parce que benn yoon rek la suma raka a ah, duga démba du texte rek mu duga waaw mu win ñu kool ko ne waaw maa ngi leen a di leen sant di leen wax ne yàlla ngeen yàgg seen place bi waaw yàlla place bi gëm kanam ngeen yàgga di mun a def li ngeen a def nal nii parce que ku amut tey léegi fu mu nekk nii ku nekkoon di jaaxle jaaxle bi génn na kon maa a sant ndom be safu ndom ba awune a baraka ba rega miti kandi piyo facule miti kandi jow facul katun jaat ala kon ka wonora ka te seeje ka wonora ko pupur katuna ba bac am amanyu pana bac tala kon kawono da kawono ko tila ko e na e, boba abarka abarka ok jërëjëf Hadi Camara mbokk yi ñu doon seetaan mu mel ni tey lii lañ leen amaloon muy fukki nit yoo xam ne nii ñëw nañ dugg nañ ci fii nga xam ne mooy daral bi ci abu ko te Africell euh, daan Africell moom ko nga xam ne lépp dara tegu ko fi lu muy ñu jox ko askan bi nga xam ne ñoom ñoo ko yeeloo comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen euh, ñi nga xam ne ñooy lucky ten winners duga dugg nañ fii ku nekk jël sa xar mu mel ni xar yi ngeen a gis nii fu mu nekk nii euh, duñ def dara rek lu muy hand leen over ñi nga xam ne ñoo nekk ca studio bi su ko defee ñu defal beneen draw su ko defee yéen seen ngeen mun a win waaye bu leen fàtte secret bi mooy ngeen call 2011 su ko defee ngeen mun a bokk ci bii promotion te bu leen fàtte de nekku ne xar rek lañ daa jox de soo koolee di nga am lu wóor ba 5 minutes boo xam ne di nga ko mun a waxtaan ak sa am di jaamay te doo si fay dara lii Africell rek ko mun di leen jox dox daje ba beneen yoon mu mel nag gars yi kontaan nañ ba noppi parce que ku nekkaa ngeen retaan ba bàyyi Thank you very much by BTA Kwarka and the whole crew there doing the presentation. Good evening, Gambia. Welcome once again to another AfriCell uh, Ramadan Tobas Tobaski. Did I say Ramadan <laughs> Tobaski? <laughs> Ram, uh, Tobaski Ram Draw. Um, for all of you that have been calling 2011 or sending blank messages to 2011 from your AfriCell line, I know you're all excited and you're all um, waiting to see if your numbers will be out tonight. Well, this is why we're here and 10 Africell subscribers uh, will be drawn tonight and of course they will win themselves uh, a ram for Tobaski each, just like you saw with those presentations. Uh, 90 have gone so far. Yeah. We're left with 160 rams to go. Who are going to be part of those winners? This is the question and this is why we're here to do the ram. Bye. Uh, asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan Peter jërëjëf bu baax a baax a baax loolu ngeen gisoon noonu uh, moo nekkoon présentation boo xam ne ñu ngi ko doon def uh, niki démba mu mel ni bér bu set rek ñu ngay joxe li nga xam ne mooy fukki xar yoo xam ne Africell la bàyyeekoo dem ci ñooñu noonu nga xam ne ñoo nekk mbokki um, winners yi ñi nga xam ne saa bu nekk rek Africell lañ dee jëfee mu mel ni pour fàttali rek leneen ne promotion bii nii lii pour nga bokka ci dafa yomba ba bugg a dee parce que li nga am pour def rek mooy nga call 2011 soo callee 2011 rek Africell nañ la may euh, free talk time boo xam ne nii na emoo ba 5 minutes tegal la ci sa nomba bi ci lii nga xam ne mooy raful bi su génnee nag ñu oola ca abu ko ba pare jox la xar boo xam ne nii yow yaay dugga bi ci biir tànnal ko sa bopp te lii euh, comme nu ma ko baaxoo di ko wax rek mooy tànn sa bu ne mu mel ni Africell kese kese la am te nag dinañ seetaat ñeneen ñoo xam ne nii ñooy nekkal lucky winners yi su ko defee ñu joxaat leen lu em ne fukki xar euh, Peter. yeah just like the DJs will say with no without no time to waste. <laughs> you know. Bosal Bitong. Wow, Bosal Bitong. We, euh, we just go straight to the draw. These are the numbers all uh, rolling now. And uh, 10 out of, you know, all those numbers will be selected tonight. And uh, who knows will be, the winners will be. ko ñin kummayata le katun uh, ye 2011 kumandi dorong ila nomba ye fintinan uh, afisali ye kumandi kata abuko kata leyaŋo ta je uh, womu kule mi ye a lon ko a diyata bakele wala na wato watintol kana jaŋ kañiŋ kumo faali andu uh, janni ñiŋ be kana lalma wo nomba ko ta doron wolen la afisal layino ti ka 2011 kumandi ni ye wo ke ila harje bi jeele andu ila buña bi jee mbe kumandi la le ina le ankilin kamba uh, munka bunan afisat saje ni bana salo sita o daha wo kan o be bola jele fo kudo bari wo kan abe bola jele pita to nyalem bay and the winners for today are as follows there we go let's see them okay but you want to call the numbers well, uh, we have uh, 7147675 7471597

198. And those are the winners for tonight. Congratulations. Um, of course, on Sunday, we won't be here, but Monday we'll be here to do another draw. And uh, on Monday, we'll have another presentation for all those who won tonight. And of course, every time we come to do a draw, we'll show you the presentation of all the winners. And uh, we've had winners from everywhere. And by today, we have a winner from Koina, I Koina. think. <laughs> Yes. Koina, uh something Kurubali. yes we have a. from Koyna waaye uh, moom mënutoon a ñëw. Mm-hmm. Uh, dafa yónnee kenn koo xam ne ni mu ngi ko fi nekkal. Mm-hmm. bi ma laajee waa ji ndax waa fan la jógee mu ne ma ne Koyna ma ne ko ne Koyna Gambia. <laughs> mu ne ma ne last Gambia <laughs>